bokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a rafet te gën a sell te gën a matale diggante jullit ak morooma noo ngi ñaan sun boroom mu ubbi sunuy xel def ci xalaat yu dëppoo aku bëggam ubbi sunuy xol tabbal ci ak sopp ko mokkub yonenteem sayidul awwalina wal axirin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yonenteem bi nga xam ne ku mu bind ak lu mu bind moo tax yonente bi nga xam ne ku ko sopp yàlla sopp la ku ko màggal yàlla def ñépp màggal la ku ko topp dootoo réer ku ko roy àgg ca yàlla subhanahu wa taala am ngërëmam noo ngi ñaan ci daraje jëmm ju tedd jooji sallallahu alayhi wa sallam yàlla def ñu ñuy ay jaamam yu ko ragal lool te yaakaar ko lool teg ñu ci siraatal mustaqim te saxal ci sunuy tànk dëppale sun lépp ak sunnas Mustafa sallallahu taala alayhi wa sallam te nangul nu ko noo ngi koy ñaan moom subhaanahu wa taala ci daraje Mustafa sallallahu alayhi wa sallam mu jéggal nu bépp bàkkaar buñ mas a def buñ xam ak buñ xamut buñ yëg ak buñ yëgut buñ tay ak buñ tayut buñ def tay ak buñ defagut ñàkk a matale àq yi dox diggante jaam bi ak boroomam wala diggante jaam bi ak moroomam day tënk jaam bi ba du àgg ci yàlla di ub bunti yiwam di ko tàbbal sawara buñ ko ko jéggalu mooy gi ngay mooy sun boroom subhaanahu wa ay bàkkaar la yoo xam ne bu la ko jéggalut fàww fóot la ak i natt yu doy war fii ci àdduna wala ñu fóot la ak sawara ëllëg ngir aljana kenn du fa dugg ak i taq-taq tooñ gi ji tooñ gi jaam bi di tooñ moroomum jaamam nag bu ko ko jéggalut ëllëg faaw mu fay ko ko te mën na fay àq yim yoreel jaam ñi ba deseetul wenn yiw wu koy tàbbal àjjana ñu fa tàbbal ko sawara wala ayaazu billah looloo tax maa ngi sàkku seen njëggal di sàkku tamit ci yéen ñin ñaanal ma njëggalal suñ borom tabaraka wa taala ak yërmandeem bokk yi ëllëg di yowmal xiyam la fay xew ci njàqare akum tiit metti na tar na tiis na روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خوفني جبريل عليه السلام من أهوال يوم القيامة حتى أبكاني فقلت له حبيبي جبريل أليس قد غفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر فقال يا محمد لتشاهدن من الأهوال يوم القيامة ما ينسيك المعذرة فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت دموعه لحيته سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نينا سيدنا جبريل عليه السلام دفنوا diko wax mbir yu tiss yi xew bés penj ba muy joy joy yu metti ba sikki mum ba toy xep ak ronxoj sallallahu alayhi wa sallam ne jibril ndax sunu borom neewuma won woon na la bàkkaar bo ma sa def ak bo defagul moy inna fatahna laka fatxan mubiinan liyaxfira laka allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar sayna jibril alayhi salam ne ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam يوم القيام دنگا فجكر لو يي خاو اي ترتر اك اي تيس يو متي بجيغ دايو بدينا لا فاتلو نجيغل جيل سون بوروم جيغل سيغم ديري بس بنت با فوفو لا تولو صلى الله تعالى عليه وسلم ba mënta téye ay ronk ñam kon xaw ma nun jaam yu xeebu yu nun war a def te moom aljanaam leer na ko nàññi leer na ko tamit ne ku mucc ci sawara ci darajaam nga mucce ku tabbi aljana ci darajaam nga ko defe ki topp seytaane dëkke mooy yàlla dëkke mooy yàlla sunu borom subhanahu wa taala nu mu war a def bu booba ki bàyyi dëgg toppug neen nu mu war a def bu boobaa ki saggane jaamu yàlla doyadal sharia nu mu war a def bu boobaa kii ràmbaaj di yàq der di tasug mbokk mu war a def bu booba ki dëkkee lekk alali jàmbur di dund ci kaw nit ñi ci lu seen xol seddu dafa liwul riba nu mu war a def bu boobaa ki yërëmul minde fi di leen doyadal di leen toraxal nu mu war a def bu boobaa kon lii lu mata a bàyyi xel la te kenn mënta teemu xew ndax yàlla moo ko wax mbokk yi tukki bi sori na yoon wi raglu na yóbbal bi néew na départ bi jege na te kenn mënta ñàkk dem te ku dem dootoo delsi waaj jot na kon nanu sangu ba set ci sunuy ñaaw téefi biir ak biti sol yére yu yiwee te rafet gëttoo xet gu neex faggu yóbbal bu doy wammatu ci yoon wu leer te amul pakk rab du la dogaale saay-saay du la ñeme yi yépp nag ni ñu koy mane dara gënu cee gaaw alsalaatu ala annabiyi sallallahu alayhi wa sallam muy julli ci sunu sang bu tedd ba ki gënal sunu borom ci lum bind te lum bind moo tax al mustafa sallallahu alayhi wa sallam loo soxla ci àddina ak alaaxira gee ñu jëm yoonu salaatu ala annabi sallallahu alayhi wa sallam moo ci gën a gaaw daañu leen leeral ci kanam li tax nu wax loolu ci ay tegtal yu wér yu bàyyikoo ci sayiduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam yu bàyyikoo ci cheikhuna alxadim radiallahu anhu wa nafaana bi barakatihi yu bàyyikoo ci ay awliyaa'u ak gaayi yàlla yu baax ngir xemmeem loo leen ko ak ragal loo leen ñàkk fonk salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نك barina na ay xeet lool maanaam ay tëggiin yu wuute am na ñu wax ne mat na ñeenti junni xeet am na ñu ne fukki junni ak ñaar boo demee ci téere bu ñuy wax afdalu salawaati ala sayidi saadaati bu yusufa ibnu ismail da nga fa fekk wax ji da nga ko fekk tamit ci téere bu ñuy wax xazinatu al asrar ba tax na dinañ ci indi yenn rekk yu jàppandi te fees dell ak njariñ indi tamit lenn ci njariñ yoo yi ñu wax ku ci xóotal ab gëstoom nag yàlla mën na ko ci xamal lu nu ump waaye li am solo rekk mooy lu nu ci mën a xam lu mu tuuti tuuti nanu ko jàpp te saxal ko kon dina faj sunuy aajo tey ak ëllëg te bi gën a tuuti ci aajo yi salaatu ala nabi sallallahu taala wa sallam di faj mooy mucc ci sawara sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne man salla alayya fi kulli yawmin mi'ata marratin qada allahu lahu mi'ata xaajatin aysaruha atquhu min annaar ku julli ci man bés bu set téeméeri yoon yàlla dina ko fajal téeméeri aajo ba ca gën a yomb ci aajo yooyu muy faj mooy goreel ko ci sawara maanaam xaraamal yaramam sawara te inna ahabba al acmaali ila allahi taala alladi yaduumu alayhi saaxibuhu jëf ji gënal sun borom ci jëf yi mooy jëf ji borom saxal sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax moo waxaat ne ahabu al amali ila allahi taala maa diima alayhi wa in qalla jëf ji gënal sun borom mooy jëf ji sax donte lu néew la jëf ju baax joo mën a def lu mu tuuti tuuti te nga woy ci dàkk sax ci bañ ko bàyyi mukk moo gën fopp jëf ju rëy boo sóobu te boo doxalee tuuti rekk dal di yokkat tàyyi ci dal di koy bàyyi ni nu la mën a misaalee loolu rekk mooy guy gu rëy goo wara daaneel boo xëyee ne balaa ngoona dinaa ko tëral mën nga caa jële tawat te du daan lu saw simmi ñaw ñaw waaye boo doon def bés bu set nga dóor wenn dóor rekk sax te way dàkk ci foo dóor bu ëllëgee nga dóoraat fa lu yàgg-yàgg dina masa daan ndax dóor wu ne dina am lum xobbee ca garab bi te doo daggale doo tooy doo sonn maneen misaal mi mooy boo doon gasub teen yàkkamtee jot ndox boo gasee ba sonn rekk ne ba ma dalee gas ba léegi jotuma ndox xëy na fii ndox mi dafa sori naa xoolaat faneen xamal ne danga nara bari pax te doo am ndox waaye boo doon wàqi lu toll ne benn peel te way dàkk ci foo wàqee bu ëllëgee nga wàqeewaat fa lu yàgg-yàgg dinga am ndox ci menn pax kon mbokk mi looy mën a def ci lu baax na ko saxal rawatina alsalaatu ala annabi sallallahu alayhi wa sallam kon lii moo doonoon muqaddima bi maanaam introduction bi ñu dugg ci waxtaan wi kon luñ ci mën a xam ci salaatu ala nabi muy gi ci gën a gàtt muy sallallahu ala muhammadin ba ci gë ci gën a gudd loo ci mën a jàpp rek na nga ko saxal lu lim ba néew néew na nga ko saxal ndax la cay balle ci njariñ kenn xamut nu mu toll te amul lenn lu nu mel lu ñuy balle ay njariñ